di sant bu baax di gërëm su may mbokk ndax ñu fi la waaye nuyoo bi dama si jiital di ñu teeri lépp yi nga xam ne ñoo toog nii di nuyu presse bi nga xamante ne kenn mënul def dara te boolewu leen ci maa leen di nuyu bu baax di leen sant di leen gërëm tey jii nag li waral ñu woote fi tey

yàlla suturaal nañu nag ñu dugg seen élection si bisimilahi rahman rahim nekk candidat yàlla jàppale ñu am deux mille et quelques voix loolu dama koy sante sumay mbokk di ko sante waa leen di ko sante Tëngéej gépp ak waa Marina yàlla dogal si diggante bi président de la république monsieur Macky Sall recevoir ñu waxtaan ak ñun mu wëlbatiku ñëwaat si baas bi base bi ne ma dinañ ko taxaw jàppale ka ñu taxaw ko jàppale ko ci élection législative yii école bi ma voté ñëpp xam nañ ne benn yoon laa génne mais yàlla dogal na ma may ko fa 1104 voix loolu nag dama koy sante suma ay mbokk ndax cëw li tëngeej ñun ñëpp a bokk kon ñoom laa koy sante te coow li lépp li ko andi booy xool nit ñi si lu ñuy wax maanaam si ay point lañ ko tënk mooy durée mandat yi ak limitation mandat yi mu coow loo xam ne rëy na lool ci wàllum constitution ñëpp di ci wax man nag ma ne comme maa bëgg doon koo xam ne dangay ngay jiite du ma dem Europe di fa uti ji xam-xam wala ma di fa gëstu damay dem ci Afrique parce que je suis africain yalla dogal ma ne dinaa tànn dëkk yi nga xam ñom lay dem bima xolé ba xalaat mu ne dëkk yi nga xam ñun ak ñom ño bokk ni ñu tëggee suñu constitution comme tool fa la nek fa la bare ma ne dinaa dem ci ñom geustu xol waye demet ci ñi nga xamantene ño bokkon ni ñu tëggee suñu constitution mais dañ ko mujjee changé tegaat ci benen yoon ma ne su ma demee foofu dinaa mën a méngale seen santé dëkk ak sen économie wu dëkk méngale ak suñu boss xol lan mooy problème yalla dimbali ñu ci lool ñu def 11 pays d'Afrique dem si dëkk yu mel ni Niger dëkk bu mel ni Nigéria dëkk bu mel ni Mali dëkk bu mel ni Burkina Faso dëkk bu mel ni RDC dëkk bu mel ni Bénin dëkk bu mel ni et cetera et cetera lim ndax bu boobaa day gudd waaye bi ñu demee ñi nga xamante bokk nag ñun ak ñoom façon bu ñu tëggee suñu constitution yàlla suturaal ñu am luñ fa jëlee loolu ñu fa jëlee nag tey jii comme coow yu bari na suñu réew te leader yu bari fii la ñu toog rek di wax ñun nag bëgguñoo bokk si ñi nga xam ne dañuy làmbatu ñoo bokk si ñi nga xam ne dañuy toog fii di wax te la ñuy wax xamuñu si dara moo tax ñu jël dagg suñu ay billets dépensé si ay millions fay hôtel dugg ci lu ne def 4 mois si àll bi. tey loolu lañ bëgg tey partager opinion national ak internationale yu jëriñoo loolu nag bi ñu xoolee ba càmbar ko ba xam tey si gars yi nombre de yi ñuy wax diire mandat yi ak limitation mandat yi si diire mandat yi lay lay jëkkee li ñu suy jotoo constaté xool ko gis nañ ne ñun Afrique ñun ñooy tànnal suñu bopp suñu président waaye si kaw loolu ñu gis ne kon lan moo war a doon problème ba tax suñu ay président tey booy xool ñuy am yenn jafe-jafe waaye bi ñu gëstoo ba ci biir xam nañ ne diire mandat muy mandat cinq 5 cinq mandat ñëpp xam nañ ne. gàtt na lool waaye nag ñu ne du ñem foofu dañuy gëstu mandat wu cinq boobu su fekkee jox nañ la lan ak lan la ci président bi mën a def ñun bi ñu xoolee ba ci biir gis nañ ne su fekkee ne dañ la fal si mandat wu cinq ans nga bëgg a ceytu police bëgg a xool gendarmerie. bëgg xool douane bëgg xool njàng mi bëgg xool lépp napp geeg càmm lépp nga bëgg ko xool tey boo xoolee boo xool di nga def trois ans te doo def dara ndax état ñëpp xam nañ dinañ dégg nit ñi naan secret d'état secret d'état mais secret d'état ku doonagul président mënoo kaa xam mais bés boo nekkee président day leer si sa bopp leer si sa ay nopp loo xamul woon da nga koy xam lu lëndëmoon ci yow dañ daal di leer mais am leneen loo xam ne tamit di nga toog ba pare xamoo ko mais di nga gëstu parce que yow yaay suñu jiitu réew te waroo def yëfi cuur loolu nag dina diire trois ans quatrième année bi dañ naan laat waajalal ay élection te yooyu ngay waajal nekkul que ne da nga war a dem gagné non da ngay jàmmarloog say adversaire di nga def le tout pour jéem a góorgóorlu farwaat pour man sa programme nga mën kaa def kon diggante boobu li nga toog di jàmbar li nga xamante ne moom nga fi fekk ak diggante bi ñu naan laan waajalal élection foofu dara xaju say 5 ans di mat. d' abord ma di leen remercier yéen les médias ci confiance bi ngeen jox président Lamine Diop président mouvement New Vision waaye nuyoo bi dama ciy jiital kilifa yi nga xamante ne ñooy coutume bi mais témoignage bi may def ci lan mooy depuis ma xam Lamine en étant jeune bu ma ne jeune mooy très bas âge Lamine dafa teel a doon responsable li may wax lu amul seede baaxul wa ma shahidna illa bi ma alimna sooy seede da ngay loo xam te li may seede rakki Lamin ñu ngi fi magi Lamin ñu ngi fi kon li may seede bu amul ñoom dinañ ma wax ne béy di de danga ci yokk Lamin dama ko miin ci tëwlen ci bas âge gis nga laa gis koo xam ne kii ci suñu ASC e. jaar na ci commission yëpp nekk na seen président sauf le secrétaire général commission yëpp laa wax Lamine géré na commission bi gënoon a difficile mu géré ko mooy la commission supporter kon kooku yàgg na jël ay initiative initiative bu mu jël nag ba jàpp ko ba bàyyi ko initiative boobu day gën a tàkk rek Lamine bi muy nekk xale la teel participer ci seen kër ay magam nga fi li may wax ni muy lu ma dund ak moom ma daan ko fekk seen kër boobu macha allah kër gi meloon nii muy ñafe di dem géej di ñëw di indil ay waajuram di jàngi di raxase ay oto à travers te géej ñun ñëpp gis nañ lim bi def loolu du fi nekk fii di ko wax am na ñu mu ko gën a miim gën ma ko xam gën koo mën a wax. ñu ngi leen di oo di leen invité yéen waa Tëngéej ngeen téye un jeune bu mel ni Lamine Diop wala mu ñëwoon rëcc ñi ko bëgg am bari na waa Ndakaaru ña nga kaa convaincre ña ngi nit mu ngi nii toog ña nga kaa convaincre pour jël ko si seeni côté pour bëgg mu doxal leen loolu la mu ngi nag ba nu ñàkkee fayda ba Lamine Diop rawlu yërëm na mënu boppam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu Euh, di wax ne man dama commencé dugg ci mouvement bi rek gis ay ñu dem Arafat parce que buy murit noonu ay numaa bi ñooñu ne dañoo soxla ndox la dem oo ñu defar feccal leen ndox ñoom ñëpp dañoo soxla courant éclairage public ñu defaral leen ñëpp ay blessé am stade bi loolu ñëpp teg nañu seen bët problème ñu amul stade te ñu jëlul blessé moom ko jël en charge dispersé leen ci yëpp ku ci nekk mu jël la en personne fayal leen lijjanti leen faj leen ba ñu ñoom ñëpp te kenn tegu ko fi ñu ñëwaat fii ñu ñëw hôpital Géej foofu la nekkoon kan mooy liggéey weer ba tey chaque jour nga def koy suba ba ngoon jot di liggéey fin du mois jot nga jël sa salaire nga ne soxlaa ma si dara tegee ko ci pharmacie bi pour malade ñu jël ko mais moom mu ngi xalaat chaque jour xaaral ma jël li yóbbu ko ci pharmacie bi ñi nga xamante ne ni tey la lii ñu mottali la grâce à lui donc man moom li ñuy wax rek mooy social loolu lañ ko mën a wax diw liñ suñ ko waxee ci la ñuy fanaan mais dañ doon jox tuuti rek après nag ñu bàyyi Kora euh, mu wax ci wàllu éducation ak sport merci beaucoup merci